waaw waaw TFM bés bu nekk ñu seetaan TFM waaw waaw TFM jërë ngeen jëf seetu mbokk yi ñu ngi leen di nuyu gërëm leen ci ànd bi ak télévision Futur Média ñu dell siwaat ak yéen ci quartier général ni ñu koy defee d'habitude euh, samedi bu jot euh, ci euh, télévision Futur Média tey tamit ñu tàmbaleeti defati rassemblement ñun ñëpp animateur journaliste ak ñi nga xamante ni ñoom ñoo fi ne di leen gunge ci programme yu télévision Futur Média dañuy tàmbali di leen ziar bu baax ziar surtout communauté layène bi nga xamante ni fan yëpp ñoo ngi nekk ci appelu Seydina Limamou loolee bu ca tuuti bëgg nañ cee waxtaan ndax Oustaz Assane boobu ba tey euh, mu ngi ci woon ak euh, ñun euh, ñu ngi leen di sargal bu loolu weesoo xam ngeen ni fu ne télévision Futur Média def na fa dara loolu moo tax bu dee quartier général mën ngeen ñoo seetaan fu ne moo xam ci réseaux sociaux yi la moo xam ci site internet bi di www.igfm.sn xam naa loolu bu ca kanamee tuuti Marianne Siva dina ko détaillé tey nag comme ni ñu leen ko diggee woon dañuy dalal gan gu mag koo donc respecté ko euh, ci euh, nit ku mu doon nitu fula nitu farata euh, Talla la kenn dootu ko présenté ku ne xam ne ni mooy maire bu Thiès d'ailleurs lu ëpp ci émission bi dañu ko jagleel Thiès benn dëkk ñaari gar dëkk la boo xamante ni dafa feese dell ak histoire bëri na lu ñu fa waxtaanee mais tànn nañu juste quelques ponk yoo xamante ni bëgg nañu ko développer man ak ñi ma àndal tey ci quartier général ñu ngi leen di sargal bu baax ak fu ngeen mënti nekk Euh, Fati Dieng euh, ñu ngi lay nuyu merci d'être la euh, tey ginnaaw bi ñu bi ñu xawee gëj a def quartier général ñu dellu si waat fas yéene joxe avant goût lu ñu nar fileek ay semaine ci weeru koor gi nga xamante ni dañu ko dëgmal ñu ngi lay nuyu bu baax bu ca kanamee daañu àndandoo ak yow ci jàmbaar yi nga xamante ni seet nañu leen fii ci réew mi surtout jigéen ñi nga xamante ni ay jàmbaar lañu. waaye itam di nuyu eh, ñu ñu bokkal plateau bi ni nga ko waxee noonu la mbégte la saa su nekk ñu ñëw toogaat fii ci quartier général bi xam naa ci kanam tuuti nag daañu doxantu ba ngor mhm. eh, xool plongeuse yi mooy suñu yaay yi nga xam ne dañuy nuur mhm. di jël eh, lool ñu naan ay sippax ak ay tuufaak ñoom seen ak ñoom ak paañ mhm. gis nañ ne nag fi mu ne nii seen liggéey actualité la Pape Cheikh ci kanam tuuti daañu faram fàcce ay plongeuse la ñu leen tuddee prétexte bi wax nga ko sànq bi ñuy préparé émission bi mu ngi jëm ci jëyee ji nga xamee ni moo amoon fan yële te Sénégal yëpp di ko naqarlu fukki euh, soxna la ñu ak benn seen bakkan des ci ndox mi Pape mhm. ñoom nag euh, seen gaal gi ñu duggoon moo suux bu ñu xoolee béttanti nag bokk na ci île du Saloum yi nga xam ne lu ëpp ci soxna yi ña ngi fay def lool ñu naan nuur di uti ay paañ ak ak yoxos mhm. euh, mais liggéey la boo xam ne Pape Cheikh bari na risque bu ñu jaalee suñu àdduna sax la ñuy wax wala Sénégal yëpp mhm. en tout cas ci kanam tuuti daañ ñëw faram fàcce xool yéen condition la ñuy liggéeyee parce que itam condition parfois yu xaw a metti la te itam njaboot rek moom moo leen tax a jóg jigéen yàgg naa doon jàmbaar waar bu weesoo jigéenu plongeuse yooyu le am na itam yeneen i jigéen yoo xamante ni ay exemple la ñu mun a Gueye Bambalo euh, moom lépp lu jëm ci wàllu droit lépp lu jëm ci wàllu yoon euh, lépp lu jëm ci wàllu économie moom moo ñi ciy gindi euh, d'habitude ci télévision Futur Média am na gëstu boo xamante ni def nga ko tey ci quartier général bi jëm ci njëriñu jigéen ak évolution wam depuis des années déjà Maymuna comme ni nga ko waxee si jigéen yooyu la ñuy des parce que jigéen dafa am rôle bu am importance boo mhm. ñuy liggéey ay liggéey yu metti mhm. mais jigéen commencé wul rek am yenn droit am yenn euh, place boo xamante ni dañ ko teg si société bi. Mhm. ba tax ñu def si benn gëstu sur le plan juridique pour xool rôle jigéen si société bi. xam la jóg xam euh, la jógee ban place lañ ko joxoon ak actuellement ban rôle la am si société bi. c'est que jigéen yàgg naa doon jàmbaar fii ci euh, Sénégal loolu ñaari reportage yu am solo xamante ni bu ca kanamee di ngeen ko mën a euh, ci quartier euh, général wax naa ko sànq lu ëpp tey euh, dañu ko jagleel Thiès ndax seen maire moom mooy gannu quartier général muy tàll si la actuellement mu ngi ci loge bu QG bu ca kanamee tuuti ñu recevoir ko Thiès nag ku ne Thiès xam ni dëkku sport la mën nañ fa lim ay sportif yu mag Ablaye Diallo Amath Diallo Bouba Diaxaw ak ñeneen ak ñeneen dem nañu fekki leen am na gëstu bu am solo boo xamante ni def nañu ko ci wàllu tàggat yaram loolu mooy sa njëriñ euh, Mamadou Ndiaye ci quartier général ñu ngi lay nuyu euh, maa ngi lay fay Pape Cheikh di nuyu ñi nga xamante ni moom la ñoom laa bokkal plateau bi di nuyu téléspectateurs yi Pape Cheikh comme ni nga ko waxee comme que Thiès euh, am na lu muy représente ci wàllu sport waaw tey Thiès a capital capital du rail la ñu wax <laughs> capital du rail tey moom <laughs> Thiès capitale du rail Pape Cheikh comme ni ñu ko waxee waaye dinañ euh, gëstu comme que seen maire la ñu invité tey jii mhm. dinañ ko dinañ ko dinañ waxtaan ak moom bu baax surtout mhm. ci Thiès nga xamante ni rôle yi mu doon yi mu doon jëlee ci wàllu tàggat yaram dafa am solo lool mhm. lool ci Sénégal boo boo leen nañ ko ci ni bokk na ci ñetteel bi li nga xam li muy li mu doon jox ci équipe nationale euh, nga xamante mooy football bi euh, ay joueurs bari na mais léegi dañu seetlu ni dafa am ay jafe-jafe surtout ci wàllu infrastructure bi nga xamante seetlu nañ ko ci région de Thiès c'est vrai ñun waa Thiès dañ daan ambiance sport à l'époque euh, mais dafa di loo xamante léegi peut-être dundatuñu ko noonu ndax manque de manque comme ni nga ko waxee on en bu ca Euh, mot de quartier d'habitude buñ dee quartier général dañuy dem euh, ci quartier yi xool li leen neex ak li leen naqari euh, tey nag gëstu bi Khady Ndiaye daf ko jagleel yenn ci ay jafe-jafe yoo xamante ni quartier yu bëri yu nekk Thiès dañu koy dund c'est vrai que ñoom am nañu ay kondir xaw ma ndax xam nga kondir moom ngeen tuddee defe naa bassin de rétention moom la tubaab bi mm-hmm. tuddee bassin de rétention ak canalisation xaw ma mais bëri na daal ay jafe-jafe yoo xamante ni bijou ñoom dañu koy dund foofu ca Thiès on en parle bu ca kanamee ci mot de quartier. dinañ ci waxtaan Pape Cheikh bonsoir bonsoir à fi nekk ak ñi seetaan comme ni ko Fatou waxee c'est avec un énorme plaisir que ñu leen di retrouver ci quartier général nar a bokk ak yéen seen samedi soir mot de quartier nag comme ni nga ko waxee yamul Dakar quartier bu ci nekk dëkk bu ci nekk am nga loo xamante ne moom moo lay métti donc moom lañ demoon xool ci biir euh, Thiès ak euh, ndimbalu Cheikh Anta Diop ñoom nag li ñu jot a wax mooy inondation ak électricité bi nga xamante ne dafay coupé ak

jooyandoo ak yéen euh, seen ay naqar donc réponse yi ak quartier yooyu la nga xamante ni bijou dem na fa diggante Médina Fall Ngent Portugaise ak yeneen quartier yu nekk euh, foofu ca euh, Thiès tontu bi ca kanam ak monsieur le maire Talla Sylla alors mën ngeen a réagir ci réseaux sociaux yi mën ngeen ñëw seetaan itam fépp ci àddina grace ak suñu site internet bi loolee Marianne def ciy ñëw léegi nii détaillé ko mais en même temps ku wax Thiès ni dëkku artiste la Marianne Euh, ku wax Thiès wax dëkku artiste la waaye laata loolu Pape Cheikh mu nuyu la nuyu téléspectateur yi nga xamante ne ñooy seetaan Quartier Général di leen ziar également ku ku wax Thiès wax dëkku artist Pape Cheikh ñu ñu mën see lim euh, ku mel ni Seka Seka nekk artist boo xamante ne euh, ñëpp ràññee nañ ko ci Thiès mu amoon benn benn woy boo xamante ne mën nañ ni bi ñuy nekk xale ñun ñëpp moo ñu doon gunge mhm. muy li nga xamante ne moo di Samba Alaar ak mhm. ku ko wax tamit wax suñu yaay Ndeye Seck bëri Thiès daal yàgg na nekk dëkku ndaanaan Pape mhm. tey ci loolu la ñu fas yéene ñëw ci kanam incha allah waaye di leen wax ni rek mën ngeen wéy di ñu suivre comme Pape Cheikh nu mu ko waxee léegi ci réseaux sociaux Facebook slash QGTFM wala Twitter hashtag QGTFM la mun ngeen ñu suivre également ci suñu application boobu di GFM et bu boo ko téléchargé gratuitement mu permettre la nga seetaan quartier général ak lépp luy programme télévision Futur Média wala lépp luy am ci digital boobu nga xamante ne moo di King FM. King FM am na également site king fm point sn euh, ngeen mën ñu fa suivre. en direct incha allah. mu ngoog euh, tey tamit euh, en plus de reportage yu am solo yi xam ngeen ni dañuy def information ak divertissement parce que tey la samedi Carlou D ku ne Carlou wax bay Fall ku ne Carlou di wax album bu bees ku ne Carlou D wax ay spectacle yoo xamante ni tout le temps daf koy def di bégal sénégalais yi sànq rek jot na présenté album bi journaliste yi su ma cité tout à l'heure Petit Théâtre benn presse party lañ def presse party nag mooy euh, benn présentation boo xamante ne journalistes yi ñoom ñoo fay nekk am euh, en exclusivité son yi nga xamante ne moom la génnee ci album bi douze yu bees la cinq ak yoo xamante ne nit yi jotoon nañ ko dégg mu nekkoon ay single yu génn album bi mooy septième septième album am en treize ans de carrière mi ngi ko tuddee Lion Lion di sonorité yu doy waar ci biir en tout cas ñun ñu ko jotoon. et c'est toujours bien et c'est toujours ci wàllu musique consultant bi euh, Sidaat Thioune la dof càmmiñu kura càmmiñal kura Thioune. <laughs> waaw lu lu wér nga wax. càmmiñal euh, kura Thioune. mi ngi lay mi ngi lay souhaiter euh, heureux ménage. <laughs> waaw ah, di la ko di la ko souhaiter bu baax a baax te it man it ma di la ko souhaiter. <laughs> ma dama joie cokoro boole ping-pong à la Pipinane <laughs> yow xam nga li may wax <laughs> donc bonsoir tous les téléspectateurs de la TFM euh, nous sommes dans quartier général comme euh, tous les week-ends mm. donc très heureux d'être là comme ah d'habitude je ah suis avec mes frères mes mm. amis et puis des invités de marque ah surtout euh, donc tey euh, mën nañu wax ni euh, Carlou Mhm. Euh, moom il est formidable il est formidable. formidable très bien <laughs> euh, le maire euh, Talla Sylla. Mm -hmm. lui aussi il est formidable il est formidable. est-ce que et, et, et puis moom artiste la en moo tax tey dafay woy. Mhm. moo tax tey dina am lu rëy lu ma koy laaj ndax moom gëj na génn si gën gëj na génn affaire yi dëgg la de gëj na gën na génn single kay. xam nga moom nee na nee na nee na laay ñombar. waaw na góor si na ngóor si <laughs> mais bu mag yi ba léegi kenn déggu ko pourtant am naa ko de. ah bu Macky lan la fi lu leer laa la wax de. Ah. defal na Macky. defal na Macky yow foo nekkoon. ah man de dama koo jotul kon xëy na wala wala xëy na bës mu daan. def nga demee Espagne la. waaw wala waaw mën naa nekk nag. <laughs> xam ngeen ni si daat moo moo dëju woon na Espagne <laughs> yëgu leen bi muy doog a ñibbi si ku ko woo mu na la see. <laughs> yow tamit Modou été. en tout cas très heureux donc tey yegg waat nañ ci quartier général. ah oui quand et puis c' un grand plaisir. c' toujours un plaisir ah maanaam c' le rendez vous. des grands téléspectateurs de la télé. c'est à dire même téléspectateurs yi dañ koy laajte tout le temps xam bëri bi jikko yenn saa yi ñu def ko yenn saa ñu ne ñu ne duñu ko def euh, xaw a dosé tuuti quoi kuy xalam di ca jaayu barke ba yaay borom mais bon euh, tey dellu siwaat nañu euh, mais avant guu yi ñuy préparé la fileek weeru koor gi ñëw bu ca kanamee donc loolee la ñu préparé jëm ci wàllu musique diggante Carlou D il va chanter pour nous mais en même temps daañu waxtaan ci album bi nga bu bees bi nga xamante ni bijou fekkee na presse Paris bi ak naka la Carlou D liggéeyee album a mën a bi ak euh, monsieur le maire Talla Sylla on a fait appel à l'un des plus grands journalistes euh, yu Sénégal muy Adia tala Adia ñu ngi lay nuyu merci d'être là euh, bu ca kanamee am na question yu bëri yoo xamante ni préparé nga ko pour ki nga xamante ni mooy monsieur le maire Talla Sylla moom defe naa ni nit ku atypique la Euh, Pape nit ku atypique la. Mm. Talla la mm. ban si je me rappelle bien 2011 laa ko gëj a rencontré. depuis 2011 dans le cadre de mon travail. bokk na si politicien yoo xamante ni. Mm. Euh, nekkul koo xam ne day xëcco micro. Euh, par rapport ak lu ñuy faral di gis. mais nag bu ñëwee aussi il faut ñu laaj ko. Mm-hmm. diggantam ak conseil municipal am nan la demee. Mm-hmm. vote budget bi am na si jafe-jafe parce que mm-hmm. léegi diggantam ak waa réew mi aussi yombatul. yooyu yëpp dinañ ko si. il il faut ñu waxtaanee waaw mu waxtaanee kees bi tamit waaw kees yooyu du mu tuddati sax. waaw kees d'avance ak yooyu. ah kees d'avance ak yooyu et puis dinañ ko laaj tamit ci loo xam ne aussi. ci li xew si réew mi. Mhm. Euh, actualité politique bi ak yooyu yëpp. Mhm. Mhm. est-ce que aussi Talla Sylla candidat la prochaine élection présidentielle. yooyu yëpp dinañ ko si junj. est-ce que di nga ñëwaat marto bi wala. Oh, waaw yooyu yëpp dinañ ko si laaj marto yi moom 2003 la woon. si je me parce que parce que xam man des fois demande journaliste yi pourquoi ñu am fit lépp la ñuy laajte. man par exemple Talla Sylla bu toogoon. dina ko rus a laaj loolu quoi dinañ ko laaj mais ko ko laaj rek te dinañ ko laaj tamit ko créé woon na xam nañu jëf jël moom moo ko créé créé waat na aussi euh, kii benn mouvement bu tudd wàllu créé waat na aussi li nga xam ne mooy euh, fal askan wi mm-hmm. yooyu yëpp dañ koy laaj aussi lan moo waral création yooyu yëpp dafay fekk yi ko jiitu moo doxul wala nan la yooyu yëpp dinañ ko si laaj. xam naa ni moom on a un très bon invité. ah un ah excellent invité du ko faral di gis si plateau. ah oui ah ça reconnais. Ah donc tey am nañu chance daje koo xamante ni dinañ fi génne ay information yu leer nañ te si dëgg koy teg. xam na aussi et puis ngi xaar seen ay questions Marianne wax na ko sànq ci Facebook bi ci Twitter ci Instagram euh, ba ci Snapchat a mooy monsieur le maire Talla Sylla oustaz Assane euh, euh, la ñuy nuyu euh, ñu ngi lay sargal di la ndokkeel bu baax oustaz bërki démb ba tey yaa ngi woon ci appel bi xam naa léegi rek dañuy tàmbali dellu si waat ci bu ko defee ñu ndokkeel ñi nga xamante ni ñoom ñoo koy dund boobu nag ba tey jërëjëf Baye Cheikh gannaaw bañ la delloo yow tam ndokkeel la. Mm-hmm. nuyu ñi ñu bokkal plateau bi yëpp nuyu mbokku téléspectateurs yu télévision Futur Média. Mm-hmm. Euh, di ñaan yàlla rek suñu borom subhanahu wa taala mu fayal ñu suñu mag ñi. ndax ku xool euh, barka démb ba tey réew mi ni mu tëddee ak événement bi ni nga xamante ni noonu la demee. Mm-hmm. loolu rek jar nañu sant del dellu dolli sant suñu borom. subhanahu wa taala bu baax a baax a baax a baax. la euh, mag ma waxoon rek ne waa penk buñ ñu gënee magu démb. yàlla dogal na ñun ñoo leen gën magu tey mhm. ndax fa tabarakallahu démb moo nekkoon cent trente septième anniversaire appelu Seydina Limaamu Laay al mhm. nga xamante ni euh, yoof la juddoo yoof la màggee mhm. yoof la yaroo ay waajuram itam nekk ay yoof waa si askanu lébu loolu nekk fierté si lébu yu nekk seen sak waaye appel bi du ne lébu yi ñoom ñoo ko moom du nit ku ñuul moom moo ko moom mhm. waaye képp kuy wax ashhadu an laa ilaha illa allah mhm. wa ashhadu anna muhammadan rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam si appel bi nga mhm. ndax bi mu ñëwee li mu woote mooy benn jullit ñi waaye itam ñun ñëpp ñu xam ne ñoo yam si kanamu suñu borom subhanahu wa taala ba tax na bokk na ci li nga xamante ni yar na si njabootam maanaam classe sociale dafa ñëw daf ko dindi amul géwél ay catégorie ay catégorie amul mm-hmm. géer mm-hmm. amul tëgg amul ñeeño amul dara mm-hmm. jël aaya ba yàlla waxoon ne yaay ayyuhan naasu inna xalaqnaakum min dakarin wa unsa wa jaalnaakum shuuban wa qabaila li taarafu inna akramakum indallahi atqaakum gis nga yàlla dafa wax ne yéen doomu aadama yi waxul ku ñuul waxul ku weex waxul jullit ku dana ki gën si yéen mooy ki gën a ragal yàlla dama liir ay xutbaam Seydina Limaamu ku ne xam na ne jàngul mhm. daawul lire arabe mhm. mais ay xutbaam li ko tënk bàyyi seex maanaam daf ko doon euh, dicté ñi nga xam ne ñoom la ko yàlla boole loon muy ay compagnon mhm. ñu ko doon bind bokk na si ku ñuy wax Serigne Matar Lo mu def si lu am solo waaye loolu day wane ne yàlla daal moom mooy yor ay mbiram mooy karim moom mooy karim buy bind du tàggoo déedéet buy rey du tàggoo buy xañ du tàggoo waaye itam buy joxe du tàggoo ndax dafa tudde boppam ci alquran moom suñu borom ne fa alun li maa yurid mhm. man yàlla man maay def lu ma neex mhm. du ma laaj kenn avem mhm. du ma laaj kenn opinion te bu ma paree du jox kenn compte rendu donc appelu kooku nag moom lañ euh, doon euh, euh, feete ba démb mais barke démb lañ ko tàmbali ca Cambérène foofu la taawa bi tëdd Seydina Issa Ruhullah sama maam ndax suñu maam Faati Mbeng moo ko jur di waneer comme ñun fa tabaarakallaahu mhm. moom itam mu nekkoon premier xalifam mhm. donc Baay Laay à l'âge de quarante ans la wax ne mhm. suñu borom moom moo ko digal mu woo jaam ñi si benn baat boo xam ne ñun ñëpp ñoo ko bokk muy boot baatu ajibu daa yallaahi te ku uyu woote yàlla faaw nga tudd baatu la ilaha illallah te kenn mënul am Alaaji Baay Cheikh mhm. lu gën baatu la ilaha illallah kon suñu borom subhaanahu wa taala bu ñu baaxelee mhm. lu mel noonu am fii si biir réew mi mhm. loolu jaar nañu sant si yàlla bu baax a baax a baax bërki démb rek euh, Marianne euh, am na gëstu bi nga xamante ni euh, def na ko ci wayjur bu jigéen bu Seydina Limaamu defe naa liñ ci jot a jàng wane na ni góor yàlla soxna yu yiw leen di jur waaw Baay góor yàlla yi soxna yi ñoo leen di jur ndax maam mm-hmm. faa wàddu wele wax itam ki nga xam ne moom moo di maam jaara buso mm-hmm. ak mag ñu baax ñooñu wax mm-hmm. itam maam kumba ndooy ndax moom mooy jur wu jigéen bu sëy naa limaamu laay maam alsaan thiaw la way juróom bu góor tudd mhm. Seydina Limaamu Baay Cheikh mhm. way juróom dafa nekkoon koo xamante ni ku sange woon la mhm. maanaam ku tëye boppam bokk si askan woo xamante ni askan woo xamante ni wu diñ lañu ndax askanu lëbu bokk nañ ci nee nañ li tax Seydina Limaamu ñëw feeñe si askanu lëbu valeur yoo xamante ni dañ ko doon incarné xam seen bopp xam li ñu bëgg waaye itam surtout xam li nga xamante ne moom la ñuy yare li nga xam ne moom moo di njaboot moo tax njaboot googu tey suñu borom subhaanahu wa taala may kasi ñoo xamante ni ñu am pas-pas lañ waaye itam ñuy teg nit ñi ci siraatul mustaqim lañ comme moom ni mu ko doon defee bëgg jàmm di ko dox di ko wax ba tey ki ko fi toogal. Mhm. di def loolu. Mhm. ndax Baye Ablaye Thiaw Chérif mi nga xam ne moom mooy nekk xalifa am tey. Mhm. boo duggee këram Baye Cheikh. képp kër diine yëpp am nañ fa turandoo. dëgg la de sëñ Cheikh Ahmed Tidiane mu mag. am na fa turandoo mhm. sëñ Cheikh Ahmed Tidiane Al Maktoum mhm. mi laaxu barke démb mhm. yal na yàlla yokk ay leeram am na fa turandoo gaynde Fatma sëñ Abdou Lahad maam Jaara Bousso askan ñëpp Cheikh Saadu ñoom ñëpp ñëpp ñëpp ñëpp Ibou Sakho bàyyiwul kenn loolu mooy wane ne benn jullit gi nga xam ne maamam doon na ko dox di ko wax moom bi mu ñëwee daf ko jëf ba pare boo duggee ci giir googule amul mbuub amul sekk amul njaay amul jàllu ñëpp laay la ñu wuyoo am na loolu daf ñu arrangé sama classe gi nga xam ne ñi leen di xam macha allah dañuy bari du ñu xam kenn léegi ku ma romb rek ba ne oustaz man la oh, laay laay maxtaar xam nga ah, ah. parce que baat boobu nee na mu ngi si allahu mhm. ndax yàlla suñu borom subhaanahu wa taala moom moo ñu sàkk ñun ñëpp mhm. léegi boo mhm. ne kii mbuub ne kii sek ne kii jàllo ne kii taala bu nekk différence daal di feeñ mu ne ñun ñëpp na ñuy waxante lay mhm. parce que boo ne lay rek muy baatu allahu nga delloo nit ki si mhm. cosaanam mhm. moom tamit bu amee xel bu xalaatee tuuti rek xam ne ñun ñëpp ñoo yem si kan mu suñu borom subhanahu wa taala ki gën si ñun daal mooy ki nga xamante ne moom moo gën a ragal yàlla te ki gën a ragal yàlla mooy li xam mooy ki nga xam ne dafa tegu ci li yàlla digle li yàlla tere mu bàyyi ko nee naa la ay xutbaam dama ko jàng amul dara dara loo siy gis lu dul ne boo dellee si alquran fekk ko si te loolu yaakaar naa nit mënul am lu ko gën alaaji Baye Cheikh am na ci sang boo xamante ni ku ko tuddu sa xel dem ci Seydina Limaamu Laay muy Maam Ablaye Kebe mhm. euh, defe naa kenn dootul werenteem euh, kenn dootul werente euh, taxawaayam ci Seydina Limaam mook njabootam am na waxtaan woo xamee nii jot na koo seq ak ki nga xamante ni mooy oustaz pap Anne bëggoon naa rek ñu jël ci aslëf tegal ko téléspectateurs yi mhm. bu ñu noppee àggali waxtaan bi Euh, maa ngi sant yàlla bu baax la JPAP di kontaan comme ni ma ko waxee léegi ci jotaay bi waaye di kontaan ci laaj bu am solo bi nga laaj mhm. laaj nga laaj bu am am am solo waaye laaj nga laaj bu ma sawar sawar lool ci tontu ci mhm. ndax dëgg la Euh, dafa am génn góor gu ci alasaan ak Kumba mhm. dëkk fii ci sawu jànt daan nappi di gëti daan bay daan dunde ñaqam mhm. mu xëy bés rekk taxaw ci beeñ bi ni ajibu daayallaahi alaaji pap am na woote boo xamante ni dañu koy woote jëmm ci yàlla maanaam istajibu lillahi wa li rasulihi iza daakum li ma yuhyikum mm-hmm. woote la jëme ci yàlla wa man axsana xawlan mi man daa ilallaahi woote la it woo xamante ni dañ koy jëme ci yàlla waaye nag bi ngay wax léegi da nga am benn baat boo ci toftal mooy la ci Seydina Limaamu teg dafa ni ajibu daayallaahi inni rasulullahi ilaykum mm-hmm. wooteem yemul ak yeneen woote yi puisque def ni wuyu ju si leen woote yàlla bi sama borom kat moo ma yebal ci ma woote ngeen wuyu si woote bi waaye Pape lu ci am solo mooy dafa ni yàlla moo ma yónni ci nit ak jinne inni rasulillahi ilaykum yaa maachara al insi yàlla moo ma yónni ci nit ak jinne alaaji Pape ma bëgg wax ni Seydina Limaamul Mahdil Muntazar bii dafa am loo xamante ni moom moo ko waxal boppam man waxuma ko keneen wax ko moo ko waxal boppam. Mhm. dafa wax ni man la démb man la tey. man la dimb man la tey. man la démb man la tey. kon moom ñëwul woote beneen yonent. déedéet. bu bu seet naa limaamul mahdi muntasar ñëwoon woote beneen yonent ni beneen yonent la mais Pape ñun daf ñuy jaaxal. Mhm. te man lay jëkk a jaaxal. Mhm. déedéet. dafa ni man la démb man la tey maanaam man la woon Seydina Muhammad ci der bu weex bi sallallahu démb man la Seydina Limaamul Mahdi wu tey ci der bu ñuul bi inna allaha qad jaala ruuhu muhammadin fi jismi bàyyi laay li mu wax daf ko ñeme de c'est vrai que moom du ñu euh, doyal ci ay waxtaanam maam Ablaye Kebe euh, se kon waxtaan ak ki nga xam ne ni mooy euh, oustaz Pape an ñu ngi koy ndokkeel bu baax ndax moom it ëttu këru diine yi amul fenn foo xamee ni am na fa sens interdit comme télévision Futur Média mm. ñu ngi gërëm bu baax maam Ablaye Kebe xam naa ni waxtaan woowulee daañ ko tegalaat mbokk taalibe yi bu ko defee ñu gën a dundaat bis boobu boobule nga xam ne ni keroog ku ne bëggoon na wuyoo laay oustaz Assane waaw ku mu neex di nga ko wuyoo ji ku mu mm-hmm. naqari di ko wuyoo ji mm-hmm. laay boobu xam nga lu tax mm-hmm. ndax kullu nafsin zaiqatul mawt la suñu borom subhaanahu wa taala wax si alquranul karim nee ne amul benn bés amul benn bakkan boo xamante ni mos na dund te bés du ñëw mu mos dee te ku mos dee di nga jàkkaarloo suñu borom te boo jàkkaarloo suñu borom dina la woo te ku mu woo doo wuyoo sa sant dëgg la dañu ne ku génn àdduna liñ lay njëkk laaj mooy man rabbu ko. Mhm. kuy sa borom bu boobaa looy wax. bu dee ah, ngëm mu woon si yow toog naan la ma rabboon fàtte naa ko. waaw mooy loolu mooy ñañu ña sàggan. waaw ñooy toog naan la rabboon fàtte ko. Mhm. waaye képp koo xamante ni la nga rabboon la nga rabboon fas nga ko. Mhm. bu la suñu borom woowee di nga ko wuyu ne laay kuy sa borom di nga ko ne yow yàlla mhm. ndax yax moo may jàkkaarloo sa biir bàmmeel ñu ne ay malaaku tiim la mhm. yor jàkkaarloo ak yow na la kuy sa borom mhm. boo nekkee nit koo xamante ni ku jub nga di nga ne laay maanaam mooy allah mhm. mooy yàlla kon dafa nekk loo xamante ni euh, euh, benn symbole la mhm. bu mu fi bàyyi mhm. boo xam ne dañ ko war a jël tasaare ko nit ñi gën a xam lan moom mooy sens bi nit ñi gën a xam lan la si namoon moom mooy lépp loo xamante ni dana tax doomu aadama bi jàpp ne moom moo gën moroomam mu xas ges ba mu xóot mu suul ko boo ñëwee beneen aspect boo xamante ni daf si dimbali jaamu yàlla yi si lu bëree bëree bëree bëri mooy li nga xamante moom moo di jàmm joo xamante ni woote na ko nee na moom taalibeem képp ku ko gëm boo yoree sa kurus di dem nit dab la xiiroo ak yow ŋaayoo ak yow ne la li nga nekkee du dëgg nee na bul tontu. Mhm. bu daggee sa kurus. Mhm. foral bu ne la per yi bul ko for nee na bàyyi ko fa nga dem wuti ji beneen loolu jàmm la. paix la te yaakaar naa ne nit ku nekk loolu nga bëgg parce que boo ko amul doo jaamu yàlla te Cheikhul Khadim radiallahu taala anhu bañ ko laajee jàmm mhm. dana gisul lu ko gën fii mhm. gisul la ko gën fa nga xamante ni moom la ñu jëm beneen bi xam naa fa laay jeexale mhm. mooy li nga xam ne moom mooy wàllu tudd yàlla benn jot waaw mooy tudd yàlla zikrullahi ndax bu daan dem ku ne xam na ne mool la woon da doon dem di gëti di dem di nappi di wuti jën di teer boo bon bu teere buy dem laa ilaha illallah lay wax buy jàpp jën laa ilaha illallah lay wax mm-hmm. bu teeree laa ilaha illallah lay wax mm-hmm. bàyyi fa la mu jële si géej gi mm-hmm. jox ko mbokk yi ak am di jàmm yi ak taalibe yi di wax laa la la dugg si néegam Mhm. jëfandikoo lu mu bëgg jëfandikoo bu lekk jotee mu lekk comme ñëpp parce que nit la woon mhm. comme doomu aadama yi mhm. mais jagleel boo xamante suñu borom subhaanahu wa taala moo ko defaloon boo demee diggante Ngor Yoof Cambérène Yëmbal dëkk yi nga xamante fa la communauté laayeen concentré wu yëpp ba fii ñu toog nii ñoom ñoo ko moom almahdi la tudd fii almahdi la tudd mooy almahdi te mm. xunt maa ngi fii wallaay xale yi xunt bi fan la ne <laughs> kon xam nga ko heureusement am na chance ba ba ba pare euh, euh, euh, li fa li fa ne ci ngëneel hmm. defe naa bëri na feebar dem fa sax da ngay wér am na ay secret yu bëri yoo xamante ni faaw nga jege njabootu Sidna Limaamu pour mën koo xam waaw loolu dafa nekk loo xamante ni lu yéeme la hmm. gis nga barke dem ba dañuy def reportage bi ñu defee direct bi ba pare hmm. avant ñu koy def seen jiil dafa wàcc suuf xam nga da wàcc bi mu wàccee yéegaat mu ne ma oustaz ma ne ko mu ma gis fii lu ma yéem mhm. ma ne ko mu waatal ma si yàlla ne bi ma duggee si xunt am na fu ñuy fóon dëgg la mu ne ma li ma xeeñ fii mhm. ba mu fóonee xajarul aswad sa makka sa kaaba ga mhm. moo ma doon xeeñ wallaahi sa njiili ñang mu ngi may dégg oustaz Pape Hann mu ngi taxaw kon dafa am loo xam ne la yàlla waxoon rek zalika fadlullah yutihi man yashaau wallahu dul fadlil adim dëgg la wërsëg ko nit dee yàlla joxu ko nit mhm. Mhm. dund yàlla joxu ko nit mhm. ngëneel yàlla joxu ko yàlla ne ne innal fadla bi yadillahi ngëneel sama loxo la nekk yutiihi man yashaau maa koy jox ku ma soob wallahu dul fadlil azim te ku yàlla jox ngëneel nga xam ne suñu borom subhanahu wa moom mooy joxe ay ngëneel te yàlla rek moom moo ki nga xam ne moom moo ko yeyoo kon suñu mag ñi bàyyi cheikh yàlla na leen yàlla fayal amiin amiin yokku seen leer taas ñu seen barke seen njaboot gi fi ne yàlla tënk leen si njub ba nit ñi li ñu leen di toppee yaakaar ko mhm. si ñoom yëpp mhm. mu nekk si ñoom parce que loolu aussi c'est très important ah, lu am solo la ndax mhm. seen ay maam ak seen ay baay moo taxoon ñu topp leen yal ñu yàlla may ñu fekke ke ay déwén yu bëree bëree bëree bëri xéwal yu yokku barke yu yokku sutur yu yokku ñi am sëy yu bees yàlla may leen ay cheikh wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu jërëjëf jërëjëf yaa oustaz <laughs> waaw dama yokk rek tuuti si lu oustaz wax ñu ngi jégalu si loolu dama am benn waxu euh, Seydina Limaamu Laay boo xamante ne dafa ma neex te daf ma marqué ma bëgg tamit téléspectateur yi bàyyi si xel parce que euh, xam nga dañoo toll jamono joo xamante ne fii euh, ku nekk da nga yàkkamti xamal sa morom dara mm-hmm. pour nga weer ko surtout lu ñaaw waaw te te te Seydina Limaamu dafa yàgg wax si waxu euh, nëbbalaate ayib mu ne nit koo xamante ne yaa ngi wuñ ayib bi mm-hmm. mu ne soo koy def mm-hmm. bu ëllëg yow mal xiyaamee yàlla dina la woo wuñ say ayib kon danaan soññe si saa su ne nit ci di suturaal say morom parce que euh, ki gën a bon ci nit yi sax yàlla dafa bëgg ñu koy suturaal mm. xam nga yow mën nga ñëw fekk nit muy def lu ñaaw mm-hmm. nga xam ni boo ko gisee mën na am kersa sax nga won ko ginnaaw parce que mm-hmm. Mm-hmm. suñu borom rek moom mooy baaxal kon ñu bàyyi xel ci ci wax boobu ne ñu bàyyi wuññi sutura nit mu ne képp kuy wuññi ayibi jàmbur bu ëllëgee yow mal xiyaam yàlla dina wuññi say sutura ñu bàyyi ci xel ndax lu am solo waaw xam naa da nga may libéré rek ndax dem baax barka démb yëpp ñu ngi si da nga may libéré rek incha allah ñu a noppal a dal incha allah bu yàgg kay <laughs> jërëjëf yal na yàlla ba libéré wul ah? <laughs> mu dem yow tamit <laughs> yal na yàlla barkeel sëy bi amiin waay def si njaboot gu barke ba ñu toog di si tudde ay doom yu bare bare bare bare yàlla defal leen sutura xéewal yéen itam yàlla gën leen jubale bañ a xajal seytaane seen diggante lafal leen cat te njaboot gi yëpp yàlla musal leen si aku fen incha allah <laughs> surtout. <laughs> dama cee bëggoon profité rek laataa ñuy jàll euh, ci yeneen sujet yi nga xamante ni préparé nañu ko tey ci quartier général bi pour ndokkeel euh, njabootu euh, Chérif Ousseynou Laye bokk na ci suñu wayjur tonton Alioune Badara Bey parce que Chérif Ousseynou Laye nijaay la ci moom donc tonton Laye tonton rek man tonton Laye tonton mag normalement ku ko woo Laye la war a wuyoo. heureusement ba Bouba Ndour moom Laye lay wuyoo. Mm-hmm. ak ñeneen ak ñeneen ci télévision Futur Média donc ñu ngi ndokkeel bu baax njabootu Chérif Ousseynou Laye Ndiaye waaye fàttewuñu tamit euh, njabootu naa ma Mandione mi jur bàjjan laali bàjjan laali di yaay euh, ci euh, soxna Thiaw Laay barki démb ñun dañoo am groupe ci WhatsApp bi maa ngi yërndu fekk sama xale yi sama doom yi <laughs> di laajte kuy Thiaw Laay voilà donc Thiaw Laay ngoogu doomi bàjjan laali la xam naa bu émission bi jeexee di ngeen fa jaar di ngeen rus déedéet di waxta ku fi baax rek ngeen waxtaane ko di waxtaane caw laay def ko tem caw a ma ngay baax ba tey de. lu leer laa leen wax de. suñu xarit la suñu xarit la ñun ñëpp. ba pare ñuy rus rus rus lu alors que dañoo graaw mu ngoog euh, donc Oustaz Assane euh, ñu ngi koy gërëm bu baax ci pàcc boobu la nga xamante ni moom la ñu jagleeloon appeluk Seydina Limaamu euh, ñu jàll ci ponk bi nga xamante ni tey jii moom la Fati Dieng indi ci quartier général jëm ci jigéen ñi nga xamante ni ñoom la ñu tuddee ay plongeuses. ay plongeuses lañ leen di woowee Pape Cheikh ñeneen ñi sax naan ay dañuy nuuru en tout cas dañuy dugg si géej gi ñoom soxna yooyu ay mool lañ sax man laa lay wax comme mm-hmm. ñëpp Euh, dem daal di nappi li nga xam ne moom mooy fruit de mer yi loolu nag Pape Cheikh euh, nemmeeku nañ ko Île du Saloum hmm. euh, fu ci mel ni bétanti goog nga xam ne fa la musiba bi amee woon ndax ñaar fukki soxna benn ñoo ñàkk seen bakkan ñoom ñëpp itam njaboot rek moo leen taxoon a jóg di liggéey mais condition yi ñu liggéeyee moom lañ demoon seeti Ibou Diouf bu rédaction bu télévision Futur Média moo doxantu ba ngoor ñu seetlu seetlu élément bi dellu si jëfandikoo li ñu am ci seen loxo ngir mën a sóobu ci géej gi noonu la ñu fekkee soxna yi nekk fii de Pointe des Almadies suba bu nekk nii lañ koy doxalee ndaxte ñuy uti lu ñuy duppee fruit de mer. ginnaaw yàlla sama yaay moo ma ko wan métier ni mhm. ma di si surtout lu boobu bu léegi. bañ a bañ a wayaan daal moo tax ba nekk si géej gi boobu bu léegi. Mhm. nga ne léegi sedd na ne. géej gi sedd na trop. dañ lay jam bu la jamee seen loxo lay newee te nga piqûre tétanos mhm. boobu moom foog nga piqûre mu ngoog reportage boobu la ñu ngi ko amaloon euh, ca Pointe des Almadies ñoom nag ay jàmbaar lañu. Mm-hmm. Euh, ndax euh, li ñu ñamee am na ay góor yu ko ñamewul sax ah. Mm-hmm. Pape Cheikh man évidemment <laughs> ak moom ñame ñamewul nuuru. non non waaw. soo gisee soxna si Pape Cheikh. sànq barki démb rek dog wala bi ñu demee doon nuuru pour benn affaire bi ñuy préparé da doon jooy avant muy nuuru donc ñoom ay jàmbaar lañu en fait. jàmbaar lañu Pape Cheikh ba noppi image yi amuñu. Euh, condition ne sont pas réunies. ah gis nga déjà tenue yu ñuy sol dafay sedd ci biir géej gi. Mm. xoolal xoolal euh, de mer yi parfois mu jam leen. dégg nga wax voilà piqûre bu oursin da ngay def piqûre tétanos euh, lépp loolu yëpp Pape Cheikh di ay conditions yu yu yu yu jafe yoo xam ne ci la ñuy liggéey. Ah. alors que amuñu choix mais itam ay jàmbaar la ni mu ko waxee géej amul bànqaas sànq ñu ngi koy waxtaanee. Mhm. donc jafe-jafe yi ngay yi ñuy jànkuwanteel ci géej gi metti na. te mhm. itam liñ ciy am bariwul Pape Cheikh. kan a a ñu koy jaayee parce que boo xoolee day yomb ba nga xamante ne yow boo koy jënd ñoom dañ koy indi jaayaat ko ñeneen ñoom jaayaat ko donc prix bu ndaw lañ ciy mën a def pour nu mu méttee pour ñu mun ko écouler rapidement luñ koy wutee métti na liñ ci am déjà bariwul parce que xam nga bu fekkoon da ngay am ay moyens yu gros moyens donc soo demee di nga mën a napp lu bëri mais comme ñoom dañuy nuur par benn pratiquement ay travail en solo ñu bëri ci ñoom dañuy liggéey pour seen bopp wala ñoom kese ñoom ñooy liggéey bu fekkoon am nañ peut-être matériel yi nga xam ne euh, mooy matériel adéquat bu ñu demee dinañ am lu bëri loo xam ne dañ ko mën a jaay. oui mais après parallèlement tam matériel bu adéquat. Mhm. Euh, obligation la. Mhm. xoddee ko balaa ngay lakkale c'est vrai que war nañu leen jàppale. effectivement mais ñoom itam war nañoo góorgóorlu ba am. Euh, mhm. matériel yi war euh, matériaux yi war pour def pour def nuur nuuru bi. waaw boo boo xoolee am nañ le minimum parfois am nañu ko am du ñëpp nag am na ñoo xam ne dinañ góorgóorlu ba am ko mais Pape Cheikh matériel bi xam nga du nekk loo xam ne si dafay yomba am. ah day jafe am yombul yombul. peut-être bokkul ak gilet de sauvetage parce que gilet yi ñiy dem géej lañ koy exiger te maa ngi dégg ministre euh, de la pêche Oumar Gueye mi ngi koy wax adiya ci euh, drame Bettenty bi naan dañu voilà naan gilet yi nii dañ koy euh, comment dirais-je dañ ko def à la portée pratiquement de voilà de tout le monde en tout cas ñi ngi wàññi ñi ngi wàññi prix yi mais daal Pape Cheikh jamono ji ñuy waxee moom soxna yi nekk fii ci Ngor ak li ko wër di nuur mm. ñu ngi ci ay jafe-jafe li ñu ko waxee nag ñoom mënuñu toog seen kër tàllal loxo dañu yor seen ay njaboot dañu mm-hmm. yor seen ay doom mm-hmm. war leen fayal ñu jàng école war a añ war a leer am nañu ay borom kër mais jigéenu Sénégal ñoom ñoo xamatul toog donc ñoom dañuy dem di wuti mm-hmm. malgré euh, les conditions difficiles euh, lu jar a bàyyi xel la donc li xew a bétanti moom moo nekk actualité soxna yooyu seen gaal dafa nuuroon ñii nekk ci ay conditions donc ñoom ñëpp pratiquement euh, boo leen yëkka gisee ñu ko waxee njaboot moom moo leen yëkkati ñoom ñëpp et puis Mhm. Euh, loo xamee ni euh, dañu ko seetlu tey ak suba ak fan yii di ñëw donc ñii dem géej nañu mooy effectivement tey ak suba la mhm. euh, li ñu wax waa ANACIM nee nañ vent la boo xam ne mun na atteindre quarante kilomètres par heure te itam petite cote bi lañ ko gën a nemmeeku jàpp mhm. waanu Casamance mi ngi commencé tey bi 6 heures jotee dina dem ba ëllëg incha allah ci dimanche bi bu 6 heures jotee voilà donc demkatu géej ci nañu moytu demkatu géej ci exactement donc c'est un vent fort très violent bàyyi xel alerte la suñu ah. mbokk mool yi ñu def mhm. attention ci géej gi mhm. ba ku ñàkk-ñàkk ba ba ngay dem itam bul fàtte sa ngànnaay muy sa kaaraange gilet de sauvetage mu ngoog bala ñuy àggali ci euh, jigéen ñi bu weesoo jigéen ñooñu nga xamante ne ñoom ñooy euh, nuuru euh, dinañu waxtaan ci évolution wu jigéen ci fànn yu bëri mhm. ak njëriñam ci biir réew mi waat leen ni tey monsieur le maire Talla Sylla mooy nekk invité quartier général ak ki nga xamante ni mooy Carlou D ñu ngi xaar seen ay ci réseau réseaux sociaux yi dinañ ko partager ak yéen donc ñoom ñaar ñu ngi ci ginnaaw ci loge euh, bu quartier général euh, bu ca kanamee tuuti euh, dinañ ñu rejoindre ci plateau bi am na itam sans beneen xarit boo xamante ni dinañu fekk si ci plateau bi daañu waxtaane guddi goo xamee ni guddi gu am solo la muy nuyu de l'or Ibrahima ngi ci ginnaaw moom it bu ca kanamee tuuti dina dina bokk ci suñuy invité donc préparer leen seen ay questions pour maire bu Thiès Talla Sylla préparer itam seen question ndax di ngeen am exclu exclusivité yenn ci ay extrait yu album bu bees euh, bu karlu euh, di euh, sànq rek la ko doon présenté journaliste yi donc yéen téléspectateurs yu télévision Futur Média yéenay njëkk a am yenn ci ay extrait yu bokk ci album boobu le mu tuddee Lion di si je ne me jigéen ak njëriñam rôle ak taxawaayam fii ci dëkk bi ndekete yàgg naa yàgg naa yàgg naa yàgg nañu ko seetlu ci dëkk bi ci Sénégal dégguma la bu baax de xanaa nga jël beneen micro bi nopp yi baaxul waaye micro boobu it baaxul defe àkku fen bi la waaw kay gay <laughs> waaw kay loo waaw kay donc comme ni ma ko waxee ma ni jigéen euh, mooy pilier société mais sur le plan juridique euh, jigéen yi nga xamante ni ñoo nekkoon Sénégal wala jigéen sénégalaise yi amuñu woon benn poids boo xamante ni doole loon na leen donc nag dafa am évolution bu lente mais vraiment bu bu boo xamante ni moom la jigéen euh, poids wam si société bi am donc ñu jógee si li nga xamante ni moom mooy vulnérabilité ba tey ñuy wax li xamante ni mooy auto autonomisation de la femme parce que booy xool sax euh, journée de la femme yi weesu ci année 2017 bi yëpp ñu ngi wax autonomisation de la femme mhm. mais avant autonomisation boobu nag dafa am processus bu gudd boo xamante ni taxawaayu jigéen ci société moom la jaar mhm. duñ def lu dul euh, déglu ci ki nga xamante ni mooy maître Ndiaye nekk benn juriste boo xamante ni mu ngi nekk ci association des femmes juristes mu expliquer ñu sur le plan juridique ban évolution la jigéen am bu ñuy wax euh, évolution ci statut jigéen au Sénégal dama bëggoon def njëkk benn différenciation différence bi mooy il faut ñu jéem a xam rôlu jigéen dans la société traditionnelle africaine maanaam rôlu jigéen ci suñu aada ak suñu cosaan ak rôlu jigéen bi nga xam ne dafa subir influence euh, occidentale ndaxte avant les indépendance cest à ci suñu société traditionnelle africaine jigéen dafa yàgg am rôle bu am solo bu mu doon jouer rôle boo xamante ne mu ngi ko doon joué ci société bi te rôle boobu nekkul woon kese togg fobeere bale raxas jigéen dafa doon participer ci développement société am dafa doon participer ci politique sociale dafa doon participer tamit ci lu bari ci société bi colonisation ba mu ñëwee xaw a jaxase carte gi loolu nag moo indi influence bi ñu am nii influence bi lan la avant la femme était considérée comme incapable sur le plan juridique cest à jigéen dañ ko considéré woon comme xale comme ku néew doole moom ñoom la ñuy wax personne vulnérable ba ñu jëlee ba ñu jógee ci incapacité juridique bi ñu ne système d'autorisation ok jigéen léegi mën na def lu bari mais il faut mu am autorisation jëkkër ji su amul autorisation jëkkëram walla ki nga xam ne mooy assuré tuteuram du mën a def lu bari lu mel ni jigéen mënul woon liggéey sans autorisation jëkkëram jigéen mënul woon administrer ay biens mënul woon def lu bari sur le plan juridique ñu jóge système d'incapacité système d'autorisation ñu ñëw système émancipation de la femme ci émancipation de la femme nag la ñu jóge permettre jigéen mën a def lu bari boo seetloo fii au Sénégal yu ci bëri à partir des années quatre-vingt si lañ ko commencé di codifier di permettre jigéen muy def lu bari ba ñu jóge ci système euh, d'émancipation bi tey ji on parle d'autonomie luy autonomie c'est le pouvoir économique lu tax parce que on s'est rendu compte que si tu un pouvoir économique say possibilité day bari say euh, say sañ-sañ day bari moo tax boo seetloo ci quinzaine de la famille wala ci journée internationale de la famille mujj yëpp dafay am autonomie Nations Unies daf ci boole autonomie ndaxte on s'est rendu compte que bu fekkente ne tu autonome tu as beaucoup plus de possibilité donc loi 89 dafa dindi li ñuy wax incapacité juridique bu jigéen bu ñu jógee ci euh, loi 89 boobu beneen loi ba 97 boobu moo indi euh, à salaire égal travail égal léegi jigéen bi lépp loo xamante ne ne liggéey nga ko mu jox la yenn avantage mu jox la yenn wàll yi ci wàll liggéey lépp lu góor def yow tamit même traitement bi ngay am mais à partir des années 80 la ñu permettre yu bëri jigéen di ko am lu mel ni fixation du domicile conjugal fixation légale avant dañu doon wax ne la femme marie est domiciliée chez son mari mais en 89 dañuy permettre ki nga xamante ne ne yaa ngi liggéey nga am sa principal établissement ci fi ngay liggéey c'est-à-dire la femme a le droit maintenant de fixer légalement son domicile. loi parité bi ñëw na en 2010 loi sur le VIH aussi en 2010 dafa yemale li muy sant ku góor ki jëkkër bi ku góor ki li muy sant ki jigéen ki ku góor ki yépp c'est la même chose. loolu yëpp mu nekk ay avancées yoo xamante ni ñu ngi koy rafetlu surtout sur le plan jigéen nga xam ne ay fonctionnaires lañu prise en charge médical en 2006 góor mën na jël en charge famille am mais à partir de aussi jigéen mën nga jël en charge sa famille c'est-à-dire sa jëkkër bu fekkente ne du fonctionnaire mais également say doom. loolu tamit ay avancées yoo xamante ne ne am nañ ko sur le plan euh, sur le plan juridique mu nekk ay avancées yu am solo malgré que am na yu bëri yoo xamante ne ne des na ci wàllu xeex ak ak yelleef euh, jigéen voilà moom itam jigéenu jàmbaar la soxna ay satu Ndiaye euh, xam-xamam màcc na ci wàllu euh, droit juriste la c'est normal ngeen may wax euh, mais déjà ñu ngi jigéen ñaa ngi kaas ci yenn ci ay droit yoo xamante ni góor a ko am te ñoom amuñu ko peut-être mhm. je que tu peux mën nga développer tuuti après ñu doog ci doog ci waxtaan waaw <laughs> Pape Cheikh lépp loo lépp loo gis rek temps la parce que mhm. booy moom ni mu ko expliquer booy seet jigéen avant si incapacité la commencé woon mhm. incapacité pourquoi parce que jigéen dañ ko jàppoon xamante ni dafa vulnérable. Mhm. amul benn baat si li nga xamante ni mooy société bi. genre femme objet comme Coumba Gawlo li muy comme Coumba Gawlo ni mu ko waxee mhm. donc loolu mooy si temps yu njëkk ya. Mhm. donc si incapacité lañ jugee ñu daal di dem si li nga xamante ni mooy autorisation maanaam ñu daal di jël tuuti pouvoir jox ko jigéen. mais balaa lu muy def dafay laaj li nga xamante ni mooy jëkkëram mu jox ko autorisation. c'est-à-dire même bu demoon ba waroon mën a dem liggéeyi il faut jëkkëram defal ko autorisation pour mu mën a dem liggéeyi. donc ñu ñu jugee si autorisation rek ba léegi rek. ah déedéet loolu dindi nañ ko <laughs> loolu dindi nañ ko mais Pape Cheikh nag yow tamit on parle d'évolution de la femme léegi nag bu ñu jógee euh, Pape Cheikh si li nga xamante ni mooy autorisation ñu dem si émancipation mhm. émancipation boobu mun nañ ni sax moom mooy boom bi nga xamante ni moo gën a may jigéen li nga xamante ni mooy pouvoir ak liberté mhm. et c'est à partir de 1989 déjà si lañ dindi li nga xamante ni moom mooy jigéen pour mu ut liggéey il faut mu am autorisation jëkkëram léegi loolu amatul jigéen boo xamante ni mhm. am nga bëgg nga liggéey da ngay liggéey fekkee soxlawoo sa consentement jëkkër mhm. aussi leneen li nga xamante ni moom moo ci amaat aussi mooy en 97 si lañ ñëw ñu ne à travail égal Euh, salaire égal mm -hmm. c'est-à-dire avant jigéen ak góor bu ñu bokkee benn poste wala ñu tolloo li nga xamante ni mooy diplome ji mhm. góor lañu daan gën a fay ko jigéen mhm. mais à partir de 97 si lañ voté beneen loi boo xamante ni dafay permettre à travail égal euh, salaire égal maanaam jigéen ak góor mhm. bokk li nga xamante ni moom la ñuy fayeeku léegi nag bi ñu demee ba 2010 ñu ñëw si li nga xamante ni moom mooy parité 2006 sax déjà li nga xamante ni xam nga avant jigéen mënul woon jël en charge jëkkëram bu liggéeyul cest jëkkër mhm. nga nekk jigéen moom dafay am li nga xamante ni mooy prise euh, prise en charge médicale mhm. c'est-à-dire bu jigéen bi feebaree wala mu am ay doom góor ki daf koy mën a jël en charge mhm. mais loolu jigéen mënu ko woon def pour jëkkëram bi nga xamante ni chômeur la mhm. wala jëkkëram bi nga xamante ni mu ngi nekk en difficulté mhm. donc à partir de aussi ñu am li nga xamante moom mooy évolution boobu 2010 mhm. nag ñu ñëw si li nga xamante ni moom mooy parité bi donc booy xool sur le plan juridique am am na évolution dafa yeex parce que toutes les femmes intellectuelles comme vous euh, da di sonal nit ñi ak protocole de Maputo <laughs> dinañ leen sonal mais may yi nga wax Euh, application bi. Mhm. parce que bu fekkente ne dañuy wax à égal salaire égal ba léegi jigéen yi ñu ngi koy xeex. parce que si biir entreprise yi. da gis koo xamante ne yéen a tolloo diplôme wala yaa ko ëpp sax diplôme. Mm. parfois du ñu jël poste de responsabilité bi jox la ko. Mhm. donc jigéen yi ngi koy xeex ba léegi. Mhm. et souvent am na ay campagnes yu bari yoo xamante ne même Occident yi ñu ngi koy def di wax ne lan moo tax ñoom ñu nekk jigéen war a gagné moins que ku góor ki li muy gagné te pourtant liggéey bi benn lay doon. Euh, Euh, assurance yi. Mhm. par exemple man laajte naa ko man je peux pas prendre en charge mon mari par exemple. te moom tey bu doon daf koy def c'est automatique que ce soit man ma nekk euh, di liggéey wala que aw ma liggéey wala quoi que ce soit il a pas besoin toog di insister le temps que ma nekk jabaram. Mhm. mun na ma prendre en charge comme ni mu mënee prendre en charge xale yi. Mhm. mais man bi ma laajte sama doom rek laa mën a jël. moom mooy ma ko jox tu vois bi ma gën a naqari nag <laughs> ba gën maa métti ba jeexal sama xol bi mooy góor bu bëggee jël ut passeport pour doomam il peut aller lui seul defar passeport bi bu bëggee voyager ak doomam il peut prendre son enfant partir en voyage mhm. euh, lu mu bëgg a def ak doomam daf koy def alors que jigéen bu soxlaa tey passeport il a besoin de l'autorisation parentale du père mm. bu bëggee voyager il a besoin de l'autorisation parentale du père et gisuma fu ñu ko teg tey ndaxte ñaar ñëpp ay parents la je dirais que bu fekkente ne góor dafa war a jigéen dafa war a laajte autorisation ku góor ki daf ko war a laajte parce que ñoom ñaar ñëpp ñoo tolloo ci doom yi léegi évolution bi léegi mais xam nga ko définir mooy code de la famille wax na leen carrément paternité bi responsabilité euh, famille bi ku koy diriger. oui mais est-ce que mënuñu ko xoolaat mais xam nga tuuti mënuñu leen may lépp. mais mais mais mais su ma ko man <laughs> su ma ko expliquer ça war na mun comprendre parce que xam nga tey. Euh, quand on parle de vas-y vas-y may mun a. quand on parle de quand on parle de discrimination ah, nekk ah. loo xamante ni c'est basé sur euh, li nga xam ne ah. mooy code de famille wala loi. Mm-hmm. donc mun nga liggéey ci mm-hmm. benn entreprise ñu teg ay chartes yoo xamante ne yoon moo ko teg mais bu am une certaine discrimination looloo tax sax nit ñi di ko dénoncer parce que c'est quelque chose loo xamante ne loi bi da leen ko conféré mm. mais ñoom dañ koy ressentir xam nga discrimination nekk loo xamante ni dafa palpable yow da ngay am benn sentiment boo xamante ne wala loo xam ne da nga koy gis mm-hmm. mais non quand tu parles euh, deuxièmement lan nga ma laajoon sax mooy prise en charge bi prise en charge bi ça dépend parce que xam nga euh, prise en charge après dafa am ay assurance complémentaire yooyu mm-hmm. jël mais su fekkee yow si jëkkër mu ngi liggéey mu nekk xam nga yow déjà sa jëkkër nekkul Sénégal. Mm-hmm. donc mu ngi liggéey feneen donc il faudrait que sa jëkkër bañ a liggéey déjà wala yow nga ëpp ko salaire ba pare war a nga demander ko mais si tu aimais la demande tu peux prendre en charge effectivement sa jëkkër. Mm-hmm. si point bi nga xamante ni moom nga daanele mooy li nga xamante ni passeport ak autorisation parce que loolu boo gisee ñu def ko. Mm-hmm. man si sama xalaat ak si li nga xamante ni moom laa ci moom laa ci gëstu. mooy ni que jigéen xam nga d'habitude góor ak jigéen bu ñu séparé wu dafay am lu si bëri yoo xamante ni jigéen ñi dañuy dañuy dem ak xale yi mhm. wala ñu tukki comme xale yi ba 14 ans jigéen moom moom yore li nga xamante mooy doomam d'habitude bu ñu divorcé ba 14 ans jigéen bi la jox li nga xamante mooy garde bi donc par mesure de protection li nga xamante mooy passeport ak mhm. autorisation de voyage dañ koy jox mhm. papa ji ce qui fait que il faut consentement ñaar parce que kii dafay yor xale bi kii yor baat bi donc loolu dafay tax ñu mun éviter ñi nga xam ne Modou Di euh, ñoom ñaar ñoo ñëw seet suñu tey ci samedi bi ci quartier général information ak divertissement euh, Carlo il va chanter pour nous et puis ñu waxtaanee album bi di Lion D euh, monsieur le maire prépare nañu ay sujets yu bëri yoo xamante ni tey Thiès la ñu ko jagleel Thiès kaay benn dëkk ñaari gaar Adia Talla moom it gëj nga ko gis depuis 2011 il paraît donc tey face to face bu nar a garaaw la ci sa diggante ak monsieur le maire Talla Sylla monsieur le maire ñu ngi lay nuyu jërëjëf merci d'être là ñu ngi lay gërëm bu baax Adia Talla ton ami nee na gëj na la gis ah waaw <laughs> kontaan nañu merci d'être là Baye Fall mun ngeen mun ngeen toog noonu euh, monsieur le maire ñu ngi lay nuyu xam naa balaa ngay nuyoo ba ñuy dugg ci euh, waxtaan bi balaa Carlou itam di nuyu euh, di nuyoo ba ñuy dugg ci waxtaan bi j'aimerais juste nga réagir par rapport ak sujet bi nga xamante ni a Gueye bàmbaloo indi na ko tey muy loo xamante ni toujours day jur débat ci sax famille yi. waaye dinañ cof ci nuyoo bi tuuti rek. mooy nuyu leen nuyu mbokk yi ñuy. <laughs> Uh-huh. yi ñu nekkal ci plateau bi di nuyu mbokki Sénégal. Uh-huh. yi seetaan yëpp. Uh-huh. Uh, ñi bu ci ñu bëri déglu woon Serigne Cheikh Ahmed Tidiane Sy. petit da ngay dem te bàyyi dinañ gis ne waxal na leen lu am solo. ndax uh, ci conférence bu mu doon def dafa ku mel ni Kocc Barma mu ni bëgg jël jigéen ne dafa war a rek ni mbaxana nen mu ni Kocc Barma c'est un farceur. <laughs> kan Kocc men waaw loolu la Serigne wax. Uh-huh. mu ni ndax yàlla ba muy wàcce aadama ak awa ci kaw suuf. Uh-huh. nee na boo gisee wàccee ndoowul aadamaak ak awa ci benn barab. Uh-huh. dafa doon bañ xawa jàppe aadama sang. ndax aadama ko fi moo ko jiitu. ci ku ñu ci sos bi. mu bañ mu jàppe ko sang. moo waral mu wàcce Hawa ci territoire bi ñuy wax Inde. Mhm. nee na ko wàcce ko fa ci condition yu metti mhm. nee na euh, ndox yi di tukkal euh, nee na nee na ngelaw li di tukkal mooy éléments yi di déchaîné wu. Mhm. nee na ku jaan yi bëri mu metti lool te jàngalu ko géographie. bu ko defee mu war a dund ci condition yooyu ba keroog muy dajeek Aadama. nee na loola doy na pour jigéen ñi ñu xam solo bi leen yàlla jox. mu ni moo tax du mën a nangu. Ah ku mel ne Kocc Barma bëgg leen woyof loo ni mbax na. Mhm. nee na Kocc Barma daal ci lii moom c'est un farceur. donc ba fa yàlla. su euh, jigéen dafa am valeur. wallaay ndeysaan loolu defe naa kenn dootu ko. wallaay ndeysaan loolu ko daan wax de. mais euh, euh, loi moom loi la yoon yoon la. Hmm. comme lii li du Ndiaye wax léegi nii code du travail et tout ce qui s'ensuit yooyu yëpp ngi fi de toute façon segam jigéen amuloon droit voter léegi mu ngi voter segam hmm. jigéen bu njëkkaan pour mu liggéey il faut mu laaj autorisation borom këram loolu maintenant c'est révolu hmm. espérons pour vous que yi ngeen bëgg di ngeen ko am mais comme li ma waxoon sànq rek dama koy daanelee sujet may mun a duñ la may lii nag nga jël lii. n'est-ce pas. Eh, <laughs> eh, maire bi sax moo dul yoon ñoo tolloo. pourtant dama doon chuté de. waaw vas-y. pourtant dama doon wax ni pour euh, jigéen euh, constat ñu def nii Sénégal maanaam euh, vraiment am na évolution bu positive. comme ni ma ko wax parce que on parle maintenant d'émancipation te ku ñu naan émancipation c'est pour vraiment te permettre de de voler de tes propres ailes. donc daal place bi jigéen am ci société sénégalaise place bu baax la. merci beaucoup Maimouna Gueye Bambaloo ñu ngi lay gërëm bu baax Carlou yow tamit ñu ngi lay nuyu yow xam nga valeur yu jigéen ah bos euh, euh, nooy na nooy na baax na. waaw salaamaaleykum <laughs> maa ngi siyaar bu baax. nooy na neex di kontaan si invitation bi. jigéen moom Pape pour wax ci man daf may si trop parce que euh, lu ma wër lu na rek jigéen laa ci gën bëgg. loolu boo koy wax ñi toog nekk góor di la déglu dañuy am même peut-être sensation bi bëggoon wax li nga wax. Mm-hmm. parce que képp ci nekk ci ñun jigéen moo la jur. Mm-hmm. te dégg naa benn xadis xam naa ne ku am toogaay la. macha allah. Euh, am na euh, saaba yi la xaw kenn ci yonent yi jaamoon suñu borom ba bëgg daal kii toog borom. Mhm. li ko nar nattoo na ko defal fii. Mhm. lépp luy natt na ko def mu jeex. Mhm. suñu borom dénk ko jigéen bi bon. mu sonal ko lool ba yàqal ko la bëggoon. natt weesuwul lool donc jigéen. yàlla ñu ci yàlla may bu baax. Mhm. mën na yàq mën na defar. ndax valeur ak pouvoir bi mu am. exactement jigéen a bëri dayoo bu ca kanamee ak yow daañu waxtaan ci laayeen di félicitation parce que tey euh, j'ai vu que journaliste yëpp kontaan quoi souvent ñoom dañoo compliqué ñoom Adia ñoom Bijou ñoom Fati saa yu ñu ci ay conférence de presse ji kaas rek waaye xam nga waykat yi lii waykat yi mais tey je me rendu compte que même eux ils fiers de toi on parlera ci album bi bu ca kanamee puisque faral di waxee information la ak divertissement loolu mooy infotainment euh, particularité euh, quartier euh, général ñu ngi jot nag ay questions yu bëri xanaa fàttaliwaat naka ngeen mën a def pour waxtaan ak ki nga xamante ni mooy monsieur le maire Talla la loole dañu koy bàyyee ak Marianne Twitter baa ngi toj Facebook waxi nop ba ci Instagram. waaw ni nga ko waxee Pape dëgg la euh, question yi depuis ñu annoncé que euh, monsieur le maire la ñuy invité ak Carlou di euh, ñu ngi si di wax leen rek di leen fàttali ne hashtag bi QGTFM la sur Twitter Facebook slash QGTFM mais mun ngeen participer également via suñu application boobu di GFM et vous application bi comme ni ma ko taam di waxee dang koy télécharger gratuitement nga am ci lépp luy programme télévision Futur Média mais nga am ci également quartier général en direct. di wax ni tamit euh, mun ngeen euh, mun ngeen ñu suivre également King FM euh, instant yi ñu ngi nekk en direct am nañ également site internet kingfm.sn mun ngeen fa am lépp Pape. Mhm. su la neexee ñu enchaîner question yi léegi wala ñu xaar ba ci kanam. mun nañu tàmbali waxtaan bi déjà Adia Sànq ba tey mu ngi toog. doon xaar sunu xarit monsieur le maire encore merci yombul doon kilifa ci réew ñëw ci waxtu wi ba noppi itam saafonte ak sénégalais. xale yi waxtaan ak ñoom ci ay ponk yu bëri yoo xamante ni euh, ñaare dañ ciy bëgg waxtaan ak ko mel ni yow mais d'habitude euh, du lay gis lu bëri ci tele yi wala ci rajo yi sànq euh, Adia wax na ko mais dabitude samedi soir heure bi fu mu lay fekk. ci waxtu yu mel nii li may faral di fekk mooy ci xew-xew yi am. Mhm. ndax maire liñ koy doyee mooy teewal. Mhm. dëkk bi mu jiite. Mhm. maanaam koppar yi ñuy jox bu weer deewee sax. Mhm. niñ ko tuddee mooy indemnité de représentation. Mhm. maanaam maire liggéeyam d'abord. Mhm. teewal la. maanaam bu fekkee tey da nga nekk maireu Thiès waa Thiès yëpp événement yi xew ci Thiès. seen événement la. te ñoom ñëpp mënuñu teew ci bu ne. yow lañu ñu yebal. yaa war di leen teewal. donc bokk na ci liggéeyu maire la présence. Euh, ba tax na mën naa la wax ni ci lu matagul ñetti at. 1723 ci moo xoolee ci suñu service protocole 1723 événements yoo am ci cees participé gun nañ ci alors lii euh, ci ëpp nag weekend la yam depuis ce matin diggante euh, dem armel parce que bis bu ne mu am nag euh, mën na amee ci sa fa bañ amee ci sa famille bis bu ne waaye bis bu ne mu am ci dëkk bi te boo nekkee maire ñu yëgal la euh, kenn ci sama waa kër di soxna si dafay da dafa ñëw di ma seet mu ne ko taal daal boo ko bëggee gis bu ko xaar ci kër gi xaar ko ci buntu armée <laughs> ndax defe naa ni dina néew bis bu muy am te du fa dem euh, bu ñuy jógee ci loolu. recevoir na ambassadeur u Indonésie ngir dafa am concept bu ñu lancé bu ñu demee ba ci biir daañu ci wax bu ñu tuddee kaay Thiès xam nga nit ñi Thiès kaay la ñu xam mais kaay boobu dëkku Mali la ñun dañ ko wëlbati ne def kaay Thiès di woo nit ñi ngir ñu ñëw Thiès bu ñu dikkee gis dégg ñoom itam indi alors ñu jóge ci loolu mu am ay événement yu xew ci biir dëkk bi am ñuy defal ñaan seen wayjur am ñoo xamante ni aussi am nañ yeneen xeetu activité moo xam ci sport la wala ci leneen euh, buñ ci jógee tey Thiès ñëpp xam nañ ni xasaay door tey Thiès la amee euh, donc te foog maire ñëw ginnaaw sax lii Talla la ci boppam doon taalibe Cheikh Amadou Bamba Khadim Rassoul mm-hmm. mais maire ak ku mu mënoon ti doon mm-hmm. dafa war a teewee événement bu toll noonu mm-hmm. Euh, jóge ci loolu enchaîné jëm si fii. voilà donc samedi soir yaa ngi ci fekk démb 3h30 du matin laa dugg sama kër. kon kañ ngay noppalu. Euh, xam nga sama maam dafa ma daan wax bala ngaa noppalu noppi. Mhm. bala nga noppalu noppi. waaw bis bu ne sama conseiller yi euh, di insister way foog dallu foog nga def nii foog nga def nii mais depuis 1988 nii lay fonctionné. Hmm. waaw. mais gojoo dund ambiance su soxna si taaj añ taaj reer yooyu. mën naa laa wax ni depuis à peu près ay 7 mois. man naa man naa à daal je pense que su ma añee sama kër warut a weesu ñeenti yoon euh, su ma reeree sama kër warut a weesu ñetti yoon. depuis sept mois. Euh, ngir lan ngir xam nga dama dëkk ci dëkk boo xam ne. Euh, bokk na ci problème yi ñu amoon. mooy teewaayu maire. Mhm. xam nga Thiès dañ leen wax dañu am maire fantôme loolu moo amoon. xanaa ki fi ki ne woon daawul teew. non daawul teew moom loolu moom euh, ndax jour bi ñuy def passation. Mhm. te li ma lay wax ni kenn du ko weddi euh, ndax du ma wax lu amul euh, bis bi ñuy def passation di le 28 juillet 2014 dafa ni ma tey ji mooy ñetteelu yoon bu ma fi teg sama tànk ci mandat bi. Ah ma ni ko bu ko waxati de. mu ne ma pourquoi pas ma ni ko bu ko waxati parce que moment boobu. bëgguma woon ñu génn ci passation bi mu wax ko parce que loolu du du loo xam ne lu lu lu rafet la mhm. euh, kon teewaay dafa am solo euh, yombul nag mais bu fekkee yow yaa tànn ne da ngaa bëgg a nekk maire yow kenn fekkul sa kër ne lay tey ji yow lañ tànn yaay doon maire mhm. yow yaa jóg dem ànd ak ay nit di daw di sàkku baatu nit ñi mhm. di ci def xaalis di créer sax ay xeex ak i ak di wax lu ne pour ñu jox la ko buñ la ko joxee diir biñ la ko joxee waruloo ménager benn effort metti na nag metti na nag waaye moom dafa metti moom sama maam dafa ma daan wax ni yàlla dafa làq njariñ ñoo ko fu mu làq njariñ mu ne mi ko làq ci ginnaaw coono coono coono waaw ñu bàyyi ak le euh, maire monsieur le maire euh, ci sa teewaay tey ji fii ci Télé Futurs Médias man maa ngi doon wax sànq 2011 laa la gëj a gis mooy bi nga déclenché grève de la fin di woote wàllu ma fekk la xaw ma sa kër sœur la xaw ma sa kër la bañoon nit ñi gis la mooy Mermoz nga tëdd si matelas sol yére bu oyof bu weex nga sonn lool mais nee nga doo bàyyi. jaral na la nga ñàkk ci sa bakkan. ndaxte devoir la ci yow. boobu laa la gëj a gis ba tey jii. mais maa ngi lay suivre. ci ay information ban li ma lay njëkk a interpeller mooy que. conseil municipal bi. nan lay doxee dafa mel ni temps yi dafa xaw a sooxee. rawatina ci conseil yi nga xamante ni ñoo bokk réew mi parti réew mi bi sa Seck jiite. Mm. te ngeen àndoon ci élection locale yi ci biir mm. coalition. Mm. tey jii ñu delluwaat di ne ni nga yore mairie bi doyu leen. boo seetloo vingt cinq février passé. ci conseil municipal bu waroon am ngir vote budget bi. dafa taxaw. ba ñu reporté waat ko. ñu reporté waat ko. nee nañu tamit présenté woo compte gestion mm. nee nañ tamit conseil municipal bi amul organe délibérant mm. donc dem nañu ba nee sax que maire amatul ci biir mairie bi mm. délégation spéciale moo ci am lan ngay tontu ñooñu waaw bi maa ngi lay gërëm d'abord euh, ci laaj bi nga lu précis nga laaj mais bu njëkk bi il faut ma leeral leen mm-hmm. euh, Sénégalais yi dañ doon induire en erreur ci benn mbir mm-hmm. mooy ñëpp dañu ma soxla ne dama doon def grève de faim c'était pas une grève de faim. ah bon ñun de loolu. waaw loolu tax ma bëgg mu leer. Euh, quoi. ci jamono boobu. Mhm. bu ngeen fàttalikoo 4 avril. Mhm. dañu buggoon def défilé. Mhm. défilé pour pour commémorer 4 avril bi. pour euh, màggal Sénégal pas manifestation pas ñaxtu parce que bis boobu du bisu ñaxtu. parce que bis boobu rek la Sénégalais yëpp. yem. Mhm. boobu dañu ko bëggoon a def défilé bi pour benn le raffermissement de l'unité nationale mhm. ñaareel bi lépp lu jëm ci bon gouvernance mhm. ñetteel bi euh, lépp loo xamante ni mën na jëmale justice kanam nga xam ne yooyu ci constitution bi la nekk ñu ne ñu euh, prise d'armes bi am daal ci place de l'indépendance leneen du am ci la coow jóge ñu bëgg a def défilé ne leen cinquante éléments la ñu soxla ñu encadré ñu ñu bañ ba pare euh, commissaire bi xam lan ñu ne balaa kenn défilé dafa jaar sama kaw euh, cadavre ñu ne ko ah yow ñun ñu waxu ko défilé ngay waxu kada xanaa ngaa nar a indi fetal ci ko waxee ne ko kon man jour bu may dem ci défilé bi sama percal laay sol effectivement ma ñawlu yére percal yére percal <coughs> comme ça boo kiiwee rek. waaw man dama ñaw lu yëre perkal def samay matukaay yi mu war def yëpp. ñëw mais fekk y avait près de trois cents policiers. te ñun cinquante lañ soxla woon. pas pour ñaxtu. mais pour pour pour màggal Sénégal. ñu ne nañ ko reporté ñu lee màggal kenn du ko reporté gàmmu kenn du ko reporté. puisque njariñu soloy def jëf bi mooy màggal loolu Sénégal moom boppam. alors bi loolu amee teg naa daal samay pexe ba. waxtu wi nga xam ne président Wade mi ngi dugg place de l'indépendance à 10 heures. waxtu woowu la ma ko def def naa mooy neewoon naa 10 heures naa dugg Gédo. parce que da ngaa lakkale woon de gars yi ñeme wuñ la woon. waaw lé lé lé hmm. xam nga dama ma doo fi dugg te dugg naa fa nag. président bi 10 heures jotee. xam nga ni xam nga ni taxaw naa ci digg bi. taxaw naa ci kaw yëkkati drapeau national ak charte acide nationale fa lañ ma yenoo kon ñu jàpp ma. Euh, bi nu ma jàppee booba dafa dajeek deux jours auparavant ñi ma doon àndal. Mm-hmm. man leen danañ ma jàpp le 4 avril 2011 mais suñu ma jàppee na ngeen ma fa bàyyi na yekk bu naqari te dem dox seen dox def seen liggéey boobu j'étais déjà candidat mm-hmm. euh, mais bi mu na jàppee kenn ku tee mi ngi dem pour ñu jàpp parce que les ñu bëri ci suñu dëkk dañuy fonctionner par émotion. Mm-hmm. maa ngi ànd ak diw duñ ko jàpp may dellu. alors ba ma gisee loolu te xam ne ay responsable laa doon waxal ma xam ne kon yoon bii du sottal mbir yi ci laa décidé ne damay def kooru wallu ndax yàlla suñu boroom moo ne su fekkee ne dara da leen a naqari ngeen jëm ko dindeeg seen loxo su sottiwul nee na ngeen seet ko am marta bay wax mu wax ba ñëpp dégg nee na su fekkee ne loolu sottiwul ngeen naqarlu ko seen xol man yàlla ma intervenir donc j'avais estimé que lu ma waroon def def naa ko ci wàllu xare pour Sénégal am li mu bëgg euh, ci at yu bëri ndax ba ma ciy dugg fukki at ñeent la am te yàlla dogal na ma am juróom fukk ak benn kon xam nga tey kon fanweer yi ak juróom-ñaar ci laa ko def alors kon ci wàllu jëf lu ma man pour changement am defoon naa ko euh, wax aussi def naa ko ndax wax na bind na taalif na woy na. wallaahi. ci ci lépp loo xamante ne mas naa jàpp ne jaadu rab sax def naa ko. kon du woon du de faim. woor la léegi nag bi loolu amee. desul lu dul ñaan yàlla. Mhm. ci laa ne damay def koor ngir yàlla wallu Sénégal. ma mhm. tudde ko kooru wallu ma choisir benn kilifa diine ñu koy wax Serigne saali Bousso mhm. ne ko yow laa bëgg nga nekk sama porte parole parce que kilifa diine du nangoo nekk porte parole grève de faim mais comme dafa am nit ku ñu jege woon koo xam ne xam nga rek seen mbokk journaliste dañu am ñenn ñoo xam ne appareil yu nekk am nañ fa ay nit. waa ji bëgg a wane ni je suis au cœur des choses. bëgg a joxe information. te moom maîtriser wul mbir mi mu dem tudd baat boobu. Ah, mu law dafa wax egg tontu yeggu fa. mais boobu daan nga nii la demee ah. daan nga ndogu wala déglu ma dama doon woor. woor la yaa ngi dégg dama doon woor. Mhm. bi ma xamee ni nag nar na indi giraawaal yi ñaar fukki nit ak ñett. tëdd dem jël lal basang sama kër yaay ca cees ne dañuy grève de faim. mu am benn waay bu tudd Talla la aussi nekk ca Kaolack. commencé moom itam ne day def grève de faim. ma xam ne man li may def yàlla ak askan we tax ma di ko def te duma ci lool ndax xam naa li may def lu mu. mais ñii yàlla taxu leen ñuy def man maa tax ñuy def. te man mënuma leen a te mën nañ cee loro. te bu ci kenn loroo duma ko mën a baal sama bopp. Mhm. ma ma woote point de presse. ci biir Mermoz ñëpp ñëw ma ni bàyyi naa ko ba ñëpp dem ci guddi gi ma jël avion dem Toulouse continuer sama woor ba xam nga kañ laa ko arrêté mhm. le 23 juin bi passé le 23 juin 2011 2011 waaw parce que loolu laa bëggoon ah, yàlla dogal na ko te fekke wu ma ko ci jëmm macha léegi bu ñu ñëwee ci conseil bi mm-hmm. euh, dafa baax nit ñi leeral yenn concept yi mm-hmm. ci biir maire yi Euh, ñaari organe moo ci am bi ñu tuddee organe délibérant mooy conseil mm-hmm. ak bi ñu tuddee organe exécutif mooy maire maanaam su ma ko doon firi ci wolof damay wax ni conseil bi mooy dogal maire mooy doxal mm-hmm. euh, bu ñu jëmee ci wàllu budget mm-hmm. puisque am na yeneen ñu waroon yu ñu mënoon wax mais question bi ci wàllu wii la jëm bu ñu jëmee ci wàllu budget benn cër la ci maire am mi ngi tàmbalee ci proposer orientation budget bi mhm. ne waaw at mi ñu génn budget bi de nii la tëddee woon gis nañ ci rëq-rëq sàngam léegi at mi nu jëm dama yaakaar ne budget bi ci yoon wii la war a jaar euh, bu weesoo loolu mu woote donc kon débat sur les orientations budgétaires mhm. d'ailleurs mooy sël séance boo xam ne ay nit ñu dul conseiller mën nañ faa jël kàddu séance yëpp nag nit man ku dul conseil mën na cee dem mais fii nit sañ a jëlee kàddu te du conseil ci boobu la pour wax ci budget bi nga xam ne maire nii la ko bëgg a ndax noonu la wala du noonu bu ñu weesoo séance sur les orientations budgétaires maire moom mooy proposer budget c'est-à-dire le maire mooy proposer budget bu ko defee maire jël loolu mu jële ci askan wi jële ko ci ay conseil liggéey ak ay services am pour proposer un budget bu boobaa suy proposer un budget article 144 dafa wax ni durée wu session mënut a weesu fukki fan ak juróom sauf session budgétaire bi nga xam ne mën naa mat 30 jours. mën naa mat trent jours. neewul forcement da koy mat mais mën na koo mat. dégg nga alors soo jëlee article boobu mu wees nga ñëw maire war a woote kon pour ñu ubbi session bi. Mhm. loolu ci cëru maire la bokk mu woote pour ñu ubbi session bi. après il faut que ouverture boobu ak waxtu wañ koy voté bañ a dépasser trente jours mais xam nga lan moo doon xew Thiès mooy da ngay woote conseil onze heures te bu njëkk dix heures lañ ko daan woote nit ñi duñ ñëw heure. kenn yóbbu ko onze heures. ma leen est-ce que dix heures da leen arrangé wul ñu ne ma déedéet. ma ni onze heures ñu ne waaw man leen fii institution la du meeting. suñ ne onze heures onze heures la te Pape Cheikh bu ma wootee man onze heures. trente minutes avant maa nga fa. ñi ñuy tuddee kilifa ci Sénégal. Mm-hmm. loolu ñuy def ñëpp ñëw toog di leen xaar man du ma ko def. Mm-hmm. tey boo laajee Thiès kenn ñëpp danañ la ko. parce que ponctualité amul kilifa man balaa heure bi laay ñëw toog. 30 mm-hmm. minutes avant 11h maa ngi toog. di leen xaar mais bu tegee fukki minutes ak juróom ma ni secrétaire de séance defal appel. ñu ne man non gars yi dañuy ñëw dans trente minutes dans une heure ñu ñëw ma ni ko defal appel. mooy maslaa bi ñuy def rek ñun. waaw defal appel. Mhm. waaw parce que sëñ Cheikh Mbal Mbawar nee na maslaa fu mu yàgg. Mhm. nee na dëgg jóg fa ndax fenn lañ fay suturaal. wallaahi dëgg la. Euh, ma ne ko defal appel. Mhm. mu ne ma xanaa bëggoo korom ma ne ko nit ñi dañ leen a fal. ku ne day def liggéeyam sama liggéey mooy woote. ba pare teew. seen liggéey mooy teew. teewal askan wi. ndax sur trois cent quatre vingt huit mille Thiessois officiellement. et au moins cinq cent mille ñu tànn ci quatre vingt. honneur la. suñ la tànnee te une fois par trois mois lañ lay woo wala mu ëpp ko danga nga war di teew et di teew à soo amee empêchement nga bind wane ni mënuma ñëw parce que gàllankoor bu mel nii laa am mais c'est une mission républicaine boo xamante ni peuple bi moo la côté da nga ko war respecter mhm. léegi luy xew mooy nga woote débat sur les orientations budgétaires le 14 janvier ñëwuñu mhm. loi bi may ma ma reporté ko en respectant trois jours fa ma reporté ko au le 21 janvier ñu ñëw parce que deuxième convocation soxla soxlaatoo 40 muy moitié bi plus 1. quart bi nga soxla muy 20. xam nga day am. Euh, ñu ñëw mu mat premier point bi nekkoon ñu war a tuddee salle de délibération dem si yàlla si Ngiraan Ndiaye. bi nga xam moo toppoon si Idriss Seck. le premier mandat mandat bi yëpp moom moo ko fa nekkal yàlla dogal mu génn àdduna 2008. Mhm. ma ne nañ ko tuddee salle de délibération bi. mais ñoom ña fa nekkoon ci ñoom ñëw ne du ci dal parce que salle de libération bi dafa daw pour Ngiraan Ndiaye man leen yéen depuis neuf ans que mu génn àdduna da ngeen ko tuddee pantare. dëgg la de wala xobu mango. wala mangasin. ah ma ne ma ne ma ne ma comme noonu la demee ñu voté vingt quatre contre vingt deux parce que ñu bëri te dafa am moment boobu ñaar ñoo xam ne. musuñu woon imaginer ni nit dina voté contre loolu. Mhm. parce que moom réew mi la bokkoon en plus. Mhm. ñoom ñu génnoon kenn ki di julli kenn ki di téléphoné te ñoom ñaar buñ ñu fa nekkoon 24 24 lay doon et bu amee égalité la voix du maire est prépondérante. Mmh. mais pour wax la rek histoire ni muy doxee. Mmh. kenn ku ne war a def li la war. Mmh. xoolal ñu ñu ñu àtte ñàkkal yëfu ngiraan ba pare war a assister ci débat sur les orientations budgétaires ñu génn dem ñafa fa desoon weesuñ juróom ci ñoom ba population ya fa nekkoon ku ci jël kàddu ñaawlu nga loolu am na des cassettes journal journal si kon filmé nañ ko. ñaawlu lool xam nga kon tey ku ñëw déjà débat sur les orientations budgétaires intéressé wu la budget intéressé wula la mm-hmm. ma woote waat le 28 janvier donc def nañ ko ah. ma woote le 28 janvier pour l'ouverture de la session ils ne sont pas venus ah donc ma reporté ko au 2 février mm-hmm. ñu am quorum ñu def l'ouverture de la séance voté agenda bi euh, war koo jébbal euh, ñu liggéey ko nga xam ne permettre nañu commission yi ñu participer ci liggéey bi def intercommission def la ca war li ñu xaar ci maire yëpp. ñu def ko te kenn du weddi li ma la wax. te li yoon bi santaane mooy maintenant 15 jours avant bis bi ñu war a muy le 25 février. xam nga diggante 2 février ak février on est dans les 30 jours. 15 jours avant muy le 10 amul benn conseil bu jotul. et le budget et le compte administratif c'est-à-dire en fait il s'agit pas du compte puisque le maire compte administratif la am le compte de gestion c'est le compte de gestion du receveur. Mhm. te le compte de gestion du receveur du conseiller ñoo koy xool c'est la cour des comptes moo koy xool. li ñuy xool ci maire c'est le compte administratif et le compte administratif donc ñu teg ko ci seen loxo. donc ça veut dire que coow lay bëri rek mais lépp tegu na ci yoon dama lay wax rek gis nga 2015 boobu ko tegee seen loxo teg seen loxo le budget 15 la wax ku ñemee ñëw taxaw ci sa kanam. Mhm. jàkkaarloog Sénégal yi ne la jotuma ko. alors le jour du vote yàlla dogal na man maa ngi doon topp tool Thiès ay tracteur yu war a jógee Canada. Mhm. ma ne ci loolu sama premier adjoint donc moo doon assuré intérim. Mhm. donc présider la séance comme normalement. Mhm. ñu ñëw ci séance bi ñoom gis ne y avait onze procurations te ñi ci ëpp bokk ñu ci bëri bokk réew mi mais am na ñu bokk réew mi nag te bëgg nañ cees de. am na de am na de ñu bokk réew mi bëgg Thiès. ñooñu dañ ne duñu xalaatuñu sax di voter ay contre ay budget ñoom Thiès rek ñoom ñëwuñu teew mais joxe dañ procuration ñoom ba ñu dikkee constaté ni avec procuration yi budget bi dañ koy day jàll parce que changement moo am Thiès ah. hmm. changement dafa am de ñu xam ne budget bi day jàll ñu xool gis ni receveur néew fi te moo am compte de gestion moo ci war a joxe ay leeral ñu ni léegi dañoo soxla bala ñoo voté compte administratif ñu jox leen compte de gestion hmm. bëgg indi coow bëgg indi coow bëgg indi coow bëgg indi coow madame le maire reporté séance mais comme ñu ci bëri ñoom maîtriser wuñu code bi dañoo toog ba bi ñuy bind préfet di bind maire nekk mais préfet mi ngi jot lettre bi le 20 mars man ma jot ko le 21 mars ñu ne article 145 may na la majorité des conseillers ñu demander au maire de convoquer un conseil extraordinaire et le maire est tenu dans ce cas de convoquer le conseil bi ma ko jotee mu am plusieurs problèmes Pape Cheikh mooy lettre bi faux la maanaam il s'agit de ce qu'on un faux euh, ndax boo jëlee lettre bi y avait 45 signatures sur 80 donc théoriquement am na majorité mais dafa am ci lettre bi ñoo xam ne dañoo cee bind seen tur te yëguñu ko benn ah. signé seen place comme dañ doon def carte di numéro carte d'identité am na ñu amul seen numéro carte seen numéro de téléphone benn ñaar ñaar ñu bind ci tur bu amul sant mu am signature ñett ñu bind ci tur bu existé wul ci conseil bi. ki doon bind moo yàqamti xanaa. ba pare waaw en tout cas loolu moo am xam nga loolu xam nga loolu amul. Mhm. bind tur bu amul. sant sant signature am na. Mhm. xam nga kon loolu mënoon naa ko yóbbu ci yoon yaa ngi dégg. Mhm. mais même bu doon lettre bi recevable na. Mhm. même bu doon lettre bi recevable na je l'ai dit vous êtes en retard d'un article puisque bala ngaa wax 145 da ngay wax 144. Mhm. or 144 dafa ni la durée de chaque session ne peut excéder 15 jours sauf la session budgétaire qui peut durer 30 jours te bu fekkee dañu ubbi woon session bi le 2 février février nekk 28 jours. le 4 mars session ki session budgétaire jeex na donc man du ma viole la loi donc forcément li yoon prévoir mooy ci cadre boobu bu ñu demee ba le 31 mars te conseil bi voté wul budget c'est le préfet qui règle le budget et qui le rend exécutoire donc il y a eu défaillance du conseil le maire a fait ce qu'il devait faire il y a eu défaillance du conseil le représentant de l'État puisque kenn du bloquer une ville léegi c'est ce n'est plus possible le représentant de l'État mooy régler le budget et c'est fait donc Thiès a son budget Thiès va travailler. c' est vrai que c' est vrai que euh, lii mooy firnde euh, reportage bi nga xam ne def nañ ko Thiès euh, jëm ci nitu principe bi mu doon mën nañu ko xool Mamadou Ndiaye et puis balaa ñuy permettre Adia mu àggali question yi Fatou itam am na lu mu préparé te mu ngi bëgg a guddi de minuit daanaka léegi. mu doon moom xam naa ni duñ sax xam kii dañuy dem rek seetaan reportage bi nga xamante ñi nga xamante jege nañ Talla Sylla woon di nga xamante ay mbokkam seetaan si bi nga xamante ni Cheikh Anta Diop defal nañu ko ak Pape Latif ñi ngi fii ci quartier Fayu dë kër gi la si la indi waaye juróom wu jigéen ak njabootam waaye de nee nañu kër la goo xamante ne da ko luwe ay xaritam xamal na ne Talla Sylla la amul pàkk bay am kër ndaxte nee na loolu la gëm moom lay dunde pàkkam bi muy am dëgg de ma nga ca janaasa ya waa daf fi luwe euh, xam nga moom Euh, soo ko waxee mu ni suuf bàmmeel rek doy na ma si mooy këram donc euh, jàpp naa ni tey ji sax boo bëggee mu boo bëggee mu meer da koy wax ni ko wutil kër ndax moom nee na suuf bàmmeel rek la ci la ci am comme comme kër mooy kër. loolee tax Talla la bëggul am kër moom nag ñu ngi ko fal meer ci atam 2014 ñetti at ci ren Talla la nekk ci beeru. si la nekk ci bopp meeru bu cees tey jii de askanawu cees ñu bari nag am na lu ñu ko doon xaare ci kaw mu am beneen doxalin loolee ñi nga xamante ne ñoom ñooy ay àndandoom nee nañ am na xar kalam gu yees goo xamante ne si la indi na ko ci meeru Thiès. ñoom sax nee nañ tàll si la lenn rek ko yitteel moom mooy askan wi. tàll si la boo demee këram amul fu muy tëdd. ci suuf la tëdd te loolu ñu bëri dañ lii mu nekk nag cër la ko jàppe jàppe ko nguur fal gi ñu ko fal cër la ko jàppe ma niti la benn anecdote dañu toog ñu ni suba la tabaski mu ngi yore lu ëpp un million yore ko ay Cees waa di ñëw mu leen koy jox ay jullit di ñëw mu leen koy jox di leen ko jox di leen ko jox ba mu jeex moom jëndul xar moom jëndul xar ay rakkam ñoo ñëw tabaski si ci kër gi parce que la mu yore nee na moom il préfère jox ko nit ñu tabaski moom xam na ne am na tabaski te it jàpp naa ci moom it bëggul ku euh, ku ku nit ku lu mu am ne conte bancaire am boo waxee mu ne man awma compte bancaire parce que moyen rek nga fay fekk lu mu am jox na ko nit ñi toog jàpp ci yàlla. am na ay projet yoo xamante ne nan la ko fii ci maire bu Thiès. ngir yokkute ci dëkk bi. ba ci euh, fon yi rek Promoville yi nga xamante ne en accord avec l'État mi ngi koy def tàmbali nañ ko lancé nañ travaux yi am na yeneen lu mu def ginnaaw bi muy que ñi loo xamante da daan lu mel ni marché Sam mu mel ni nga xam ni da daan sonal Cees waaye nga xamante ni ci quartier jaxaaw la nekkoon di sonal Cees waaye yi sonal leen ci wàllu seen dëkkuwaay ak seen nekkin mu taxaw ci dafa ñëw rek ci weer woowu mu. tàmbali liggéey ci présenté nañ ko fon yi muy plan de développement de la ville mu liggéey ko ak ay techniciens andi ci ak waa ARD andi ci ak ay borom xam-xam boole ci Cees waa yëpp couche yëpp ba tey ji ñu créer benn ñu mettre en œuvre benn plan boo xamante ni plan de développement de la ville muy soixante quinze projets yoo xam ne à hauteur de soixante dix huit milliards ak lu topp la indi war ko doxalee cees mu am donc une vision futuriste une vision d' avenir parce que xam na ni Thiès ci bientôt Ila Touba mi ngi fiy jaar bientôt autoroute Thiès Tivaouane bientôt autoroute euh, euh, aéroport international Blaise Diagne mi ngi ubbi te loolu dafay indi xëcc ay investissement yoo xam ne war na jëm si Thiès mu taxaw ci donc. Euh, di ko préparer. voilà reportage boo xamante ni ñu ngi ci àndoon ak euh, Cheikh Anta ñu ngi koy gërëm bu baax moom euh, di euh, suñu correspondant foofee ca Thiès benn dëkk ñaari gaar yi mu wax nag ci président monsieur le maire defe naa bëri na wax na ko léegi nii sànq balaa ñuy tàmbali émission bi Mamadou Ndiaye ak ma naan amul fu mu dëkk. waaye ci reportage bi tam nee na. amul fu amuloo foo tëdd. muy lu lu lu lu lu doy waar loo xamante ni mooy firnde sànq li Adia wax nii euh, euh, da nga nekk nit ku atypique. Euh, xam nga kenn ku ci nekk ak li nga gëm. Mhm, mhm. gis nga tey ji kër gi ngeen fekk sama waajur. Mhm. këru location la. choix la bu ma def parce que man maa jàpp ne suuf du ma ci am lu dul sama bàmmeel. Ah waaw sama gis-gisu àdduna la. Euh, jamono bi nga xamante ni def nañ ma maire. Hmm. dafa am euh, ki nga xam moom mooy sama jëwriñ. sëriñ hmm. Serigne Khadim Lo hmm. ne ma xam naa ni ngay dunde waaye tey dañ la dénk ciiru ñëpp. te war nga mën a am ay gan ni ngay demee ci yeneen réew ñu di leen dalal. Euh, war nga dëkk foo xamante ni. ñoom bu ñu fi dikkee di nga leen mën dala mhm. ñu dem ab diir tuuti ma demoon seeti sëriñ Abdou Aziz si alamine mhm. euh, ndax moom day wax souvent ma yow moom sama collaborateur nga euh, ñuy waxtaan